bien bi moo bëgg Sëriñ Saaliw bëgg naa ku bëgg ay mbokkam. Mohamed Kane nuyu nañ la. ça soxna si. ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay bu baax a baax a baax. Eh, tey lan moo waraloon sa teewaay fii. waaw xanaa teewaayu bànneex teewaayu mbég ndax ku ne ci bis yi. sunu borom fonk lool kon yiw yi ci nekk waroon na rek kuñ ko yëgal rek nga ci rawatina nag sama diggante ak sëñ Ablaye loolu ku ne xam ko umpul Sénégal ndax man bokk naa ci ñi ko dalal fii ci Sénégal loolu nag waxin la mooy bi mu ñëwee man bokk naa ci ñi mu njëkk a xam fii ci réew mi waaw mooy dox ba tey. ci biir loolu lan nga mën tey ci sëyam. waaw xanaa ñu góorgóorlu rek. ndax euh, tey bàyyi xel nit ñi ñaanal leen nag suñu borom mosal leen ci cat ndax lu fi yàqu rek cat moo ko yàqu muy ñaan yàlla sàmm leen barkeel seen sëy bi ci barkeel Cheikh Saliou. maa ngi lay fay baax soxna si di nuyu waa di leen fay. mën nañu xam lu waraloon euh, jigéen la Ablaye Diop suñu xarit la. tey ñëw ngeen Pikine gis ngeen ne foo leen sànn mbattu mu tàkk yow lan nga mën a wax ci loolu. waaw lii jombul sumbulu ndax mbaaxam ak liggéey bu rafet bi mu liggéey ci réew mi ci métier mi ko yàlla jox euh, rafetal na ko nekk ko xam ni yàlla may na ko ci tolluwaay mais nag mu rafetal am ak ñëpp jàmm sëñ Ablaye aussi nekk nit ku baax ku amante ñëpp jàmm donc seen bés nii rek la mën mel kenn ci ñoom rek bésam ëpp na lii waxuma ak ñaar. VIP people moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg ay mbokkam